salaamaaleykum bonjour bonsoir man madame mademoiselle madame mademoiselle monsieur kenn ku ne ku ñu tuddee ak santam di leen siyaale di leen wax euh, li nga xam ni moo fi gën a fës ci xibaaru temps yi yëpp fan yi mooy coronavirus bi nga xam ni mu ngi lëmb jamono ji actuellement nii daanaka fépp foo dem ci médias yi moom la ñuy waxtaanee li fi gën a fës nag ci xibaar yi mooy coronavirus bi daanaka moom la ñuy waxtaanee. Euh, de déclaration Abdoulaye Diouf Sall bi nga xamante ne nii jox na ko ci ñi nga xam ne dañuy contre feebal bi naan ay feebar yu amul Sénégal ak yu mel noonu Abdoulaye Diouf Sall mi ngi wax ak ñoom mu ngi leen di xamal ne leen bu bàyyeen seen leew leew lu te nekk nit feebal bi mën mënta ñëw fii di lëmbe àddina bi yëpp ñëw ba Sénégal ngeen naan amul fii te loolu baaxul bu mu ngi lolaate feebul boo xam dafay loolaate kenn waru koo caaxaane di di gëmloo nit ñi naan feebul amu fi loolu teguñu ko fenn ay magum jëmm di lijjanti jël seen xaalis def ko ci feebal pour ñu jéem xool ni ñu koy saafalaa nga toog fa nga toog yow naan ay feebal yu amu fi yow xam nga ne feebal daloo moo tax nga naan feebal amu fi te am na ñu may lay pour ñu bàyyi ko xel bu baax a baax Abdoulaye Diouf Sall mu ngi dànkaaf ñi nga xamante ne nii ñooy koy contrôlé mu ngi wax ni képp koo xamante ne dégg nañ nga ni feebal bi amu fi bu la jàppee gars yi dinañ la yitt yitt yoo xamante ne dinañ la dóor ba nga yëy nga dool kaa bàyyi macha allah demaloon nañu ne fi nga xamante ni mooy eh, aéroport Blaise Diagne ba ah, benn waa joo xam xale bu góor bi nga xam ne moo jóge fële ci espagnol Espagne ñëw fii Barcelone la jóge ñëw fii daal di indi indaale feebal bi kooku nag dëggantaan bu mu ñëwee ci aéroport bi jël nañ ko daal di koy yóbbu xool ni am na ah, c'est négatif ah. léegi après ñu jël ñi nga xam ne ñoom ñoom la bokkaloon avion bi ñu daat leen ni quarantaine xam nga boo ko defee ñu daat leen ni mettre en garde waaye ji nga xam ne nag moom mooy xale bu góor bi jóge woon Barça moom nag li waloon di ca jaaru mooy dañ ko waloon a jël yóbbu ko xool ko ndax est-ce que bi muy yéeg ci avion moo ko tey wala déet bu fekkee moo ko tey nag dañ ko war a faj ba mu wér ñu jàpp ay xiil bàcc ka ay ba mu lekk parce que moo ko tey xam nga tamit loolu jekkul jaadoor nga naa di xam ne da ngaa amee feebar ba pare nga ñuy yéeg ci avion bi loolu tegoo ko fenn donc loolu nga xamante nii ñëwoon na ba tey jii ci xibaaru coronavirus bi nga xam ne mu ngi lëmbe Sénégal ba léegi nii euh, université bi nga xam ni mooy moo am université bu Dakar bi président de la république joxe na xibaar nee na arrêté nañu ko lépp waa université mais mais c'est mais mais étudiants yi ñoo ñàkk jom yow yow ñuy wax ni si alerte nañ seen kóol yi ngeen wala jooy ngeen éligible di wax naan merci tonton Macky loolu si si honte loolu dafay firndeel ni Sénégal kenn bëggatul jaar xam-xam moom jëleñatul boloo ah mais nag erreur bi nga xam ni moom la gars yi def erreur bi état def erreur bu lay lay boo xamante ni def nañ ko bu mag mooy bi ñu suspendre cours yi dañ koo waroon dañu waroon suspendre cours yi pour gars yi bañ a daje université waaye nag. dañoo waroon bi jox kuul yi kenn ku nekk toog fa nga toog toog sa machine di jot kuul yi normalement loolu moo jaar lool mais nag buy woy na mbuus actuellement ni xëy na feebar moo leen ëpp doole ba jaxase seen xel bi waa état waaye waroon nañ maa woo laaj leen parce que waxoon naa leen bu situation tollee fii nañ ma woo laaj ma ni am naa ci ay xibaar yoo xam ne yu wér la te am naa ci ay conseil ba tey jii ci seen xibaaru coronavirus yi demoon nañ leen ci sport ñu xamal ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon xaal combat Ama Baldé ah, kii bi euh, combat Papa saw ak sit combat boobu noonu gasi nañ ko beneen jamono. combat boobu dootul am parce que ba léegi ci wàllum coronavirus bi ñëpp dañuy bañ fu mbooloo daje te làmb moom kenn du ko wax taf na mbooloo te sax ci dolli bi gën a galaaw mooy bu fekkente ni Siteu daa amee coronavirus vite fait da koy Papa Sow ndax bu songoowee doolante ñoom ñaar ñu nenganante Siteu bu ne ko ci suuf ama euh, Papa Papa daal koy nooy arbitre bi ñëw di leen consulter Aldo am ko Aldo dem consulter dem Val. waa Vaal ñu xool ñooñu am ko waa Vaal jokkalanteeg ñe ñëpp am ko. bu ko defee nag comme ñu daal di jël seen matukaay ñu wax ni coronavirus bi li muy bañ mooy mbooloo mbooloo yi nañ ko éviter kon nag ministre bi jël na dogal wax na nañ ko alerté di lay mën a suul yi ka nga Sénégal la mooy seen problème dañu bëgg dof doflu da ngay gis kuñ ci jàpp di ko yitti nga ñëw naan da koy ñaanal njëkk wax nañ ni alerté nañ alerté nañ ku fekkente ka jabal bu fi kenn wasin sax mu bokk mu gën a dee bu fi kenn def dara takk jabar bu mënta ñàkk mënta ñàkk kenn mooy takk kii ñaan kii maye ak imaam bu ñu toog maye loolu la jërëjëf mbokki internet yi eh, lii moo fi jotaloon lu ci seen i xibaar yi ci eh, leen doon présenté seen journal bi mooy yéen gën a xam xam ngeen ni ñàkku la kat sax jëlu wax eh, Maguette moo nekkoon ci xale yi ak assistante ñilaan Eh, mais màgget nag màggetul loolu la fi jotoon lii di lu si xibaar di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu